wa rahmatullah mbokkeen doon not ñu ngi leen di bégg bu baax a baax a baax bu ngeen gisee jotaay bi nag ngeen xam ne ki ko waral moom mooy suñu père si jaxate nekk promoteur bi nga xam ne mu ngi nekk ci Kajoor bu ñu Kajoor nag moom mooy région de Thiès li tax nag tey jataay bi am maanaam balaa ñuy ñëw ci combat bii toog nii dañuy ñëw ci li nga xam ne moom lañ njëkkoon a siiwal parce que dañu siiwaloon que ni Tyson numéro 2 moom la ñuy boole ak ki nga xam ne moom moo di caatu euh, yof ba yaakaar naa loolu siiwal na tey ci suba ba ñaari mbir yi waroon daje fii fekk nañ fi manageru Tyson numéro 2 muy Matar Ndiaye ak ki nga xam ne ni moom moo war Tyson 2 muy Ibnu Diop ba ci Ndoy ñoom ñëpp fekk nañ leen fi mais nag malheureusement la ñuy wax bi ñu demee ba dernier moment mujj ñu gis ki nga xam ne moom mooy caatu yof loolu nag xëy na moom promoteur bi dina ci indil dina ci indi ay leeral lan moo tax Tyson 2 wala boo caatu yof dem ba dernier moment ah mu mel ni dafa deltu ginnaaw am na lu tax parce que loo gis mu tax rek am na lu ko waral léegi nag waaye du ci yem le 19 mars moom si di jaxate dina tëgg fii ci arène nationale bu soobee sunu borom yaa ngi dégg te itam na Tyson de moom yaakaar na dina ko wutal adversaire beneen boo xam ne nii dina bëre ci palaasu caatu yof mais bés boobu tamit ay mbër yu mag dañ ci nar a bëre tiir boobu tiwaawoon xam ngeen ko yaa ngi dégg mbër boo xam ne boo boo demee ci côté Thiès boobu da koy yëngal ba mu yëngatu Pape tamit defe naa ne boo demee Thiès day mel ni Siteu buy bëri buy génn di bëri ji hmm. mu mel ni bés boobu ñoom ñaar tamit war nañ ci bëri le 19 mars kon nag moo tax ñoom ñaar la ñuy bàyyi ak promoteur bi waaye balaa ñuy dem si ñaari mbëri dañuy bàyyi Père Sidi mu nuyoo leeral Sénégal yi lan moo tax combat jaatu yoof ak ki nga xam ne mooy Tyson 2 mujj a yàqu tonton Sidi ñu ngi lay nuyu di les ziar acca sénégalais yaa nga waxal ak ñoom ci combat bi euh, Babacar maa ngi lay nuyu à travers yow mooy nuyu tey jii képp koo xam ni moo nekk ci presse bi te taxaw fii jàkkaarloo ak ñun di nuyu monsieur Bira Sène le président du g di nuyu Ndiambé Diop le directeur administratif mais di nuyu képp koo xam ne mi ngi nekk ci bureau CNG bi di nuyu képp koo xam ni tamit tey jii yàlla def na ngay dund wàllu làmb muy lutteur muy amateur di képp koo xam ni tey jii aussi encadreur bi yàlla def na le mars dañu war a ñëw def fii benn gala bu mag ñu war ko fay def muy dimanche 19 mars fii ci arène national bi ñu waxtaanoon ak euh, Imnu jóg moom mi nga xam ni moom mooy manager bu Tyson waxtaan tamit ak ki nga xam ni mooy Matar Ndiaye mu nekk euh, manager Thiatou Yoff ñu am accord de principe yëpp ma xëy jóge Thiès indaale ki nga xam ni moom mooy tey jii tur boobu Tivaouane mu ànd ak manager ñu ñëw Pape mbay bu cees ànd aussi ak manager ñu ñëw ñu waroon a jëkk a déclenché li nga xam ne moom mooy hostilité yi léegi yàlla def na lépp lu ñu waroon a ci xaalis te d'accord woon ko ak manager yi yemb na xaalis bi ñëw na lépp ñëw na ba ñu tàmbale woon a def yenn contrat yi pour jublu ci combat wu le diggante Caatu Yoof ak ki nga xam ni mooy Tyson de bi ñu toogee man ak euh, imnu ak euh, mbërëm muy Tyson de toog ak Matar Ndiaye mi nga xam ni moom mooy manager caatu Yoff di ko xaar te démb mu joxoon ñu avalam par le canal de euh, ki nga xam ni moom mooy suñu conseil technique bi suñu def Abdoulahad Ndiaye ba lépp sotti woon donc looloo waral tey ñu xëy jóge Thiès parce que ku nekk xamoon na ni sax le temps était trop juste parce que ku war a tëggi làmb mbali mbaling dimanche donc heure bi waroon na la fekk peut nga nekk vers Mbour di def say réglage ak yooyu mais dama ni woon naa ñëw def réglage yu combat yooyu nga xam ni moo war a ñëw pour que permettre mbër yooyu aussi ñoom ñu mën a euh, tàmbale ñoom it seen promotion man ma tàmbale ko sama wet malheureusement caatu yoof moom mi nga xam ni Matar Ndiaye moo ko yor ñun ñuy xaar depuis dix heures Matar di woote téléphone di woote téléphone ba à l'heure actuelle muy presque treize heures daal ci li mu mujj a am ci coup de fil mooy mujjula d'accord ñoom daal dañu am tuuti désistement ci seen biir moom ak Issaoum donc man loolu ma Matar mujjee wax rek laa mën a yàpp mu ne ma xam naa ni caatu yëpp daal ni ma Matar def ci mujj a mer pourquoi mujj mer parce que nee na moom waxam la ñu mettre en léegi nag comme noonu la demee la leen lu ci desaat nag defe naa ni bu ngeen bëggee mu gën a xóot mataara ngi nii lu ngeen ko ci laaj dina leen ko wax moom mi nga xam ni mooy manager caatu yoof mi ngi nii nag bala muy génn. waaw. lu ci mën a wax moo mën a gën a leeral lan la parce que man li ma ci xam daal mooy waxoon nañu tarif d'accordoon nañu ci contrat bi ba lépp bañ tax ñu ñu ñëw pour war a joxe suñuy avance tey ah je suis surpris daal ci loolu mais xam naa ne ñun. de notre côté day du ay problème finance parce que lañ ñu laajoon ba tax ñu ñëw fii tey entre les deux camps ñun indi woon nañ ko donc euh, sur fait dañuy mujj a jël aussi combat bii nga xam ni combat choc boole te bokkoon tam bokkoon ci journée bi tamit te ñu waroon a bëri aussi un combat spécial donc en attendant pour bañ ñoom ñuy retourner waat comme ça di dellusiwaat ndax jot amul donc moo bëgg combat bii tey jii ñu présenter ko au public xam ne aussi les deux champions yi nga xam ne ñoo nekk aussi ci région de Thiès ku ci nekk di mobiliser aussi loo xam ni vraiment ëpp na ci nekk ni ci mel ko mën a waxe ñoom ñu war a waxtaan ak public bi en attendant ngeen peut-être xañ na d'ici quarante huit heures soixante douze heures ah man de defe naa mardi war naa fee ñëwaat kon pour ñu woote waat presse bi nii pour def grand combat yi ak leneen lu ci toppaat ñu defaat ko ci. kon Tyson actuellement su non pour le moment du ma focaliser wu ndax amoon naa ay plan B du ma focaliser woo di ci ni Tyson 2 rek lay doon déedéet mën na am parce que am na combat yu ma waxtaanoon damay bañ a citer komba bu ma joxagul benn avance loolu moo tax mais forcément c'est pas Tyson 2. c'est pas Tyson 2 déedéet c'est pas forcément beneen grand combat. boo xam ne incha allah daal dina dina doon daal euh, xale yoo xam ne daal vraiment dinañ yëngal jamono et dinañ mobiliser incha allah. muy la pour la date du dimanche 19 mars bu ci yàlla fii à l'arène nationale. am na solo léegi leer na euh, Pape Mbaye ñu ngi lay ziar. waaw oh, doole ziar. waaw dégg nañu micro yi mën na yokk sa a jox ko fii rek nga ne wala baax na wala ma jox ko.